donc foofu la ñu tolloon pour fii la jàppoon nañ ne suñu gagné combat boobu jamais de la vie kenn du xalaat du taxaw daal day xalaat une seule fois que dafay jalgati constitution bi def quoi dafa ruusu dafa ñaaw dafa ruus xol gàcc di nekk di leen leemal di ñu yóbbu ay constitution ay foofu naa ko wax su dee projet la bu ñu bëgg a taxawal dañ ko teg loolu du mos a jàll Sénégal fii dañ ko wax au national xeexoo mbéy mi dinañ xeexoo ëpp yooyu kon nga leer seen bopp nañ ko teg ci suuf nañu liggéey nag dinañ fi defee bëriwul nañu taxawu askan bi nañu bàyyi di teg askan bi ay ay coono nañu bàyyi ñuy jàpp di leen teg ci boppam nañu liggéey pour Sénégal 2024 mu dem yoonam keneen bi ko mën a remplacer ko remplacer mais bu ñu nekk def fàttali dañu dellu ci suñu bopp parce que loolu dañu ko mës a ndaw te su boobaa dañu